internet yu Seneinfo point net ak Seneinfo international ñu ngi leen di nuyu fas leen defal tënkub xibaaru tey mardi septembre 2020 koy tàmbaleek xibaaru biir réew mi gannaaw bi nga xamee ne kon gouvernement bi déclenché na lii di plan Orsec ngir daal euh, ñëw ngir dimbali kon ñi nga xam ne inondation yi sonal na leen kii di ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye moom nag ci lënd bi demoon na visiter ay euh, zone yu bëri ci dakaar ak banlieue bi lu si mel nii Euh, cité Bellevue zone captage Parcelles Assainies Guédiawaye euh, cité douane cité Junkom marché Thiaroye ak Rufisque moom nag nee na euh, li tax mu def loolu nag mooy dem ngir nemmeeku nit ñi seen coono yi leen taw bi <coughs> kon coono yi nga xam ne kon taw bi sabab na ko waaye itam ngir jox ay instruction service yi nga xam ne kon mooy service compétent ngir daal ñu xool na lañ mën a def ba gaaw a kon génne population yi ci jafe-jafe yooyu ñu nekk ba léegi sax ci mbënn moomu sax kii di président Macky Sall kon bésub tey bii di mardi convoqué na réunion fële ca palais de la république bu 10 heures jotee réunion bi nag mooy ñu xool daal kon nu ñuy def ba indi kon ay solution yu gaaw a gaaw a gaaw ci lii di mbënn mi nga xam ne kon nemeeku nañ ko ci gox yu bëri ci fii ci Sénégal réunion boobu nag dinañ ci teew ku ci mel ni kon gannaaw président Macky Sall après ministre Aly Ngouille Ndiaye dina ci teew Serigne Mbaye Thiam nga ne mooy ministre de l' assainissement. Euh, dina ci teew ministre de finance et du budget Abdoulaye Daouda Diallo dina fa teew Abdou Karim saltam tam di ministre de l'habitat et de l'urbanisme euh, moom it dina fa teew euh, xibaar bu tiis moo am fële ca Bayla muy benn dëkk bu nekk ci Bignona foofu la kon ca Casamance muy ab koo xam ne koo xam ne kon candidat au bag la woon di wuyoo ci turu Marie Diédiou moom nag gannaaw bi nga ko annoncé ne kon euh, am na am na am na bakam te sax ci deuxième tour yi la gannaaw bi résultat deuxième tour yi génnee daal euh, ba mu admis daal bi nga ko annoncé ne admis na kon ci la sax euh, ñàkk bakkanam ñu ne la ab crise cardiaque la am mën na am nag kon kontaan bi daal dafa kontaan kon mën naa am daal kontaan kon mbég mbégte mi amoon mën naa am moo jéggi dayoo kon mu jaare fa kon am crise cardiaque ba daal ci la ñàkk bakkanam moom nag ab candidat libre la woon ab candidat libre te bu ñu sukkandikoo sax ci euh, suñuy confrère yu IGFM moom nag bëggoon na bag bi lool sax bëggoon na bag bi lool waaye gannaaw ba mu ko amee kon xolam mu jéewu ko attan communauté économique euh, bu état d'Afrique de l'Ouest ñoom nag fi ñu nekk nii daal dañoo jox ak ak ab ultimatum maanaam ab délai ñoom daal nee nañ fi mu nekk nii daal ñii di Euh, junte ba nga xam ne ñoom ñoo jël pouvoir muy militaires yi nga xam ne ñoom ñoo jël pouvoir yi euh, foofule ca Mali nee daal fi mu nekk nii nañuy décider euh, nañu koñ désigner benn président ak benn premier ministre de transition fii ak 15 septembre kon daal fii septembre lañ la ñu may soldat ya ngir ñu désigner ak président de transition ak it ab premier ministre euh, boo xam ne daal ñoom kon ñoom ñooy yore transition dëkk ba euh, ci benn période bu douze mois loolu nag ñu ngi ko ne démb ci sommet bi nga xam ne euh, kon muy benn session cinquante septième session ordinaire bu CEDEAO nga xam ne ñu ngi ko doon amal foofu foofule ca ñaame yi beneen décision bu mag sax bi nga xam ne jël nañ ko kon ci cinquante septième session ordinaire bu CEDEAO boobu mooy ki nga xam ne mooy président Ghana te di wuyoo ci turu Nana Akufo-Addo moom nag moo remplacé ci président su CEDEAO bi kii di euh, président Niger Mahamadou euh, Issoufou ñu jàpp ne kon euh, fi mu nekk nii kon Nana akufo ado di président Ghana moom mooy président en exercice kon bu CEDEAO président Macky Sall nag def na ab tweet kon di féliciter président bu bees bi waaye it di féliciter kon. président bu bees bi waaye it di rafetlu itam liggéeyu président bi nga xam ne kon moo ko nekkoon di président Ousuf Issoufou président ba léegi nag ci sommet boobu sax la ñuy des président Buhari nag euh, dafa def benn appel bu am solo moom nag euh, bi nga xamee ne kon ñu ngi amal sommet boobu foofu la ca Niamey ci Niger moom nag euh, woo na ay naataangoom ci président africain yi ne leen daal dañuy respecté lii di constitution bi surtout. lu jëm ci wàllum troisième euh, mandat bi nga xam ne euh, day faral di indi ay ay day faral daal di indi ay jafe-jafe ci dëkku Afrique yi ndax dañoo nemmeek président yu bëri bu ñu ñëwee ba def ñaari mandat dañuy bëgg daal soppi constitution bi ngir jéem a amal benn troisième mandat kon nag président Buhari di président bu Nigéria woo na ay naataangoom ne leen daal nañu gën a respecté constitution surtout limitation mandat yi ñu respecté ko. Euh, ngir daal mun a moytu kon euh, tension yi nga xam ne dañ koy nemmeeku kon ci Afrique te troisième mandat di ko jur bu ñu jógee foofu kon dañuy dem ca Togo maladie bi ñuy wax trypanosomiase wala bokk maladie di sommeil OMS nag nee nañ fi mu nekk nii kon boobu la feebar nekkatul problème de santé foofu la ca Togo ñoom da gannaaw sax ay jàngat yoo xam ne kon def nañ ko euh, ci situation maladie boobu ci ñaar fukki at yi ñu weesu daal gis nañ ne kon feebar bi nekkatul lu ñu naan problème de santé foofu la ca ay jeunes yu bari sax. jeune génération bi sax ñu si bëri ko ñu xamuñ xamuñ sax lan mooy feebar boobu kon di la maladie du sommeil te ñu koy woowee trypanosomiase buñ jógee foofu nag ca Togo kon dañuy dem ca RDC nga xam ne ñaari opposants yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon sax nekkoon nañ sax ay candidats ci présidentielle 2010 bi weesu muy Martin Fayulu ak Théodore Ngoy ñoom nag justice ba daf leen convoqué liñ leen convoqué nag mooy ñoom nag dañ doon. jéem a démontrer ne kii di seen adversaire te di président actuel bi di Félix Tshisekedi ñoom nag dañoo jàpp ne kon kooku dafa violer eh, lii di constitution bu république démocratique bu Congo buñ jógee foofu ci Afrique kon dañuy dem ci international bi ak lii di mbirum eh, Jamal gi muy journaliste. saoudien boobu nga xam ne kon dafa nekkoon critique da doon critiquer bu baax pouvoir euh, pouvoir dafa doon critiquer kon pouvoir euh, saoudien bi te nga xam ne euh, dañ ko fi assassiné woon moom nag ñi nga xam ne kon dañ leen tuumaaloon ba jàppoon leen ci mbirum assassinat boobu nga xam ne dañ leen condamné woon peine capital dañ leen tëjoon ci seen giirub dund démb daal ci lënd bi ab tribunal benn tribunal saoudien daal moom moo annulé kon peine capital boobu fi mu nekk nii ñu ngi leen condamné kon ci lu jëm ci ay penu sept ba vingt ans kon daal ñu jàpp ne kon ñi nga xam ne ñoom lañ jàppoon ci mbirum faatuk euh, Jamal Khashoggi di journaliste boobu la nga xam ne critique la woon da doon critiquer bu baax a baax kon pouvoiru saoudien bi ñi nga xam ne ñoom lañ si jàppoon kon te ñu condamné wu leen ay peine capital muy tëj leen seen giiru dund fi mu nekk ni kon peine capital boobu euh, tribunal euh, saoudien boobu kon daf ko annulé fi mu nekk ni kon ñu ngi war a tëdd lu toll ci juróom ñaar lu toll ci set kon jàpp vingt ans euh, la ñuy tëdd. dañ koy jeexaleek mbirum sport ak équipe nationale bu Sénégal nga xam ne war na jouer ñaari match amical international bu njëkk bi contre Maroc la mu ngi koy amal le 9 octobre ca Rabat euh, ba ca des contre Mauritanie mu war ko amal la 13 octobre ca Thiès bu ñu sukkandikoo ci fédération sénégalaise bu football. Euh, rencontre yooyu nag maanaam pour préparation la ci perspective bu éliminatoire CAN deux mille euh, vingt et bi nga xam ne dañ ko reporté deux mille vingt deux euh, te coronavirus bi euh, waral ko ba léegi itam novembre sax Sénégal war na jàkkaarloog kii di kon Guinée ci benn double confrontation double confrontation boo xam ne mu ngi am troisième ak quatrième journée bu éliminatoire kon bu CAN 2022 boobule loolu ñun tey ci ay xibaar rafetlu seen teewlu leen jox dig daje ëllëg. Sénéinfo International.